Gigon, bi nga xam mo nek Dakar ak scandale bi nga xamanteni ni amna fa parce que pharmacie bi dafa dak ñaar ci ay katam di ay julit ndax lan parce que bi waxtu julit joté dañu démon def li nga xamanteni ni moy farata ci diine l'islam manam dem julit ji bala ñu ñëw di ci def ab analyse deglu, leen di bayyi ngeen déglu kenn ci seen avocat di maître Massokhna kan pour que ngeen xam exactement mbiri naka la fa démé mu docteur Dia ak docteur Dioum ñi mu dàq dañu daan julli té te ñu déranger kenn bu julli joté ñom à tour de rôle xamni service bi dara du ci yaqku à tour de rôle dañ doon dem ku nekk julli ji 5 minutes ñew jëlaat sa liggéey 5 minutes yoy mom lañ leen téré ni leen lolu amatu fi alors que ñom déjà chaque jour danañ def 30 minutes au moins d'heures supplémentaires

xam ni juróom-benni euh, kii la ñu employé ay médecins ay docteurs ñëw ñaan ko ni ko may ñu cinq minutes du yàq dara ci liggéey bi parce que noonu moo fi ma sa am te vraiment dañ koy def à tour de rôle mënul yàq dara ci liggéey bi mu dàq leen nag fa mu xool ñaar ñi nga xam ni xëy na yaakaar na ni ñoom ñooy meneurs yi mu dàq leen sans cent droit nee na faute lourde waaw kooku nag mooy koo xam ni dañu yaakaar ni xëy ne xaalis bi muy gàññi fi Sénégal daf ko jey

di liggéey ci pharmacie bi di Guigon doon def li nga xamante ni farata la ci ñoom te musul jul problème loolu foog ñu préciser ko pour leeral tamit nit ñi nga xamante ni dañuy wax naan waaw liggéey liggéey la boo koy def da nga ko war a respecté pour wax leen que ni liggéeykat yi nekkoon pharmacie Guigon di fa liggéey ñi ngi doon def seen liggéey correctement bu waxtu julli mësaan jot ñu dem julli te loolu lu ëpp juróom fukki at ñu koy def te musul am njeexital ci seen liggéey wala pharmacie bi li muy gagné ci wàllum koom au contraire chiffre d'affaires pharmacie Gigon dafa mës di augmenter wu te ben client musul plaindre ci pharmacie bi ni mu daan fonctionné ak julit yi fa dan liggéey bu heure julli jotee ñu dem def li nga xamanteni mo moo leen warloog seen dîner. ba tay ci explication yi parce que bëgguñu mu am confusion parce que ñu bëri dañuy bëgg jaxassé nit ñi. pharmacie julit yi nga xamanteni ñoy ñooy pharmacie Gigon ba tay pour préciser bu heure julli musaan jot ñom ñep duñu dajaloo bàyyi fa liggéey bi bàyyi fa client yi dem julli déedéet demeewul noonu bu waxtu julli jotee kenn day dem julli ji au moment wu ñeneen ñi di toppatoo ñi nga xamante ni ñooy clients yi di xaar ka dem julli ji pare maanaam dañ ko doon def à tour de role te ba tey musul jur inconvénient loolu aussi mat nañu préciser ko. léegi nag comme ni ko mettre maître soxna Kane waxee propriétaire pharmacie bi muy Guigon dem na ba tollu jamono joo xamante ni nii beew na. xaalis jiital na ko parce que pharmacien bokk na ci pharmacie yi gën a jaay ci ville bu Dakar léegi nag mu ni jullit ya fay liggéeyee amatu leen droit dem julli ji ci seen waxtu liggéey te ñooñu ay at ñu ngi koy def musul jur fitna mosul créer problème gannaaw ba mu defee loolu nag mu am ci ay liggéeykat pharmaciens yi ñaawlu li ñu mel di woy nag bu heure julli jotee ñu dem def li nga xamante ni moom la leen seen diine sant gannaaw bañ ko defee nag ñu licencier leen dàq leen ci tegul fenn cas yu ñu mel daf ñuy interpeller parce que du guléet ñuy gis yu ñu mel gis nañ fi récemment kaawu Elimane Kandi ak Oxfam ñu nous leen ñu promouvoir ay goor Nous ñu lank ñu créer leen ay problème bëgg leen dag ñu ciow ay ci problème bi ñëwaat ko ci dañuy wax que ni lu ëpp ay sénégalais mënuñu nous. ci biir réew def seen njang ci biir réew ay doxandem ne kenn xamul suñu biir installé fi créé fi seen i bërëb liggéeyukaay soxla nag xam-xamu sénégalais yi nga xamante ni jàng nañ ñu sollicité leen pour que ñu liggéeyal leen pour que ñoom ñu gañe ci xaalis ba pare nag wëlbatiku bëgg leen aaye ñu pratiquer li nga xamante ni mooy seen diine te loolu lépp duñ ko teg fenn duñ ko teg ci yoon duñ ko teg ci dara loo xamante ni wér na balaa sax ñuy ñëw ci wàllum diine dañuy wax ci wàllum yoon maanaam aspect juridique bi ci constitution bu Sénégal maanaam ci parti bi nga xam ne moom lañ jagleel wàllum religion ak communauté religieuse dañu ne ci article 24 que moom ngeen gis ni la liberté de conscience les libertés et des pratiques religieuses ou culturelles la profession d'éducateur religieux sont garanties à tous sous réserve de l'ordre public maanaam ci tënk bépp sénégalais yoon garantir na la nga pratiquer li nga xamante ni mooy sa diine te du am benn gàllankoor su fekkee ni lorul kenn mais comme niñ ko waxee ci njëlbeenu wax bi julit yay liggéeyee ci pharmacie gigon yàgg nañ di def li nga xamante ni mooy seen farata te loolu musul porter préjudice benn doomi aadama du ki moom pharmacie bi du kenn ka fay liggéeyee du itam client yi mu am tamit beneen partie constitution bu Sénégal bu ñu jagleel pratique religieuse ci domaine bi nga xamante ni mooy wàllum liggéey ci bërëb liggéeyukaay yi foofu tamit boo fa demee ci article 25. dañu wax ci lu leer nañu que chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi Manam, ku ci nekk am nga droit ak itam article bi nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines de son sexe de ses opinions de ses choix politiques ou de ses croyances Manam, waruñu doyadal Newol Dole, wala sax xañ benn doomi aadama liggéey sukkandiku ci ni mu xeetoo wala ci lu mu doon maanaam góor wala jigéen wala wala fu mu bokk ci wàllum politique wala li nga xamante ni mooy ngëm-ngëmam donc bu ñu sukkandikoo seulement ci loi sénégalaise yi pharmacie gigon ak ki ko moom muy monsieur gigon ci boppam amuñu yoon amuñu dëgg ci dara te dañ leen war a sanctionner sévèrement ñu xam que ni dëkk bii dafa am yoon ab samba boy du jugee ci àll ba rek ñëw di def lu ko neex bu fa jugee dañuy ñëw ci wàllum diine te foofu dañu am lu ñu metti lool bu ñu gisee yenn ci ay julit di défendre pharmacie gigon ci nonu ngay comprendre que ni suñu rew ñu ci bari war nañ leen yarat ci diiné parce que ñu ci bari ñi ngi naan ay julit lañ mais ci biir bokku lañ bëté seen biir xol yi ay ngeum neew fa parce que li yalla wax amul c'est à dire amul fu jamono tollu amul modernité amul walum liggéey waxu yalla amul commentaire soit da ngay appliquer wala nga bayyi dem gëm leneen bo demé ci alcorane ci surat 4 verset 103 yalla dafa né julli dañ ko diggal bép aji ngëm ak nak ci ay waxtom maanaam yàlla waxul ni julli leen yam ci déedéet mais dafa ne julli leen ci waxtu wi et même ci lislaam ci fay li nga xamante ni moo julli ñi ñuy wax ci wàllum fay julli mooy ñi nga xamante ni dañ ko fàtte ak ñi nga xamante ni nelaw da leen dab ba julli wuñu boo demee ci ay borom xam-xam yu mag yu ci mel ni Ibn Azm Ibn Taymiya Ibn Qayyim al-Jazwiya dañuy wax naan képp ku sàgganee ab julli te tay ko mënatoo ko dabu maanaam mënatoo ko fay loolu li muy undu mooy bu jaralee wala wutum dërëm jarale julli ji yàlla rek moo la mën a baal yërmandeeb suñu borom moo la mën a dimbali. donc bu fekkee ne am na jullit yu mën a dëkku loolu noonu am na ñeneen ñoo xamante ni ñoom dara jaralu leen ñu teggi ndigalu suñu borom def leneen donc ñi nga xamante ni préféré nañ heure julli jot ñu bàyyi fa liggéey ba dem julli ci ñooñu ku leen wax dara da leen tooñ te newoo ci dëgg. mu am tamit ay naafeq yu wax naan wàllum diine domaine privé la maanaam doomi aadama bi na yem ci moom yoonu kenn newu ci. loolu lu dëgg te teguwul fenn moo xam diine lislaam wala diine chrétienne amul fenn fu ñuy wax que ni booy génn sa kër bàyyi fa set diine loolu complexe yi ñoo koy wax te loolu sax xanaa boo ko waxee mooy jullit bu jigéen bi buy génn na teggi muuroom teg ko fële xanaa loolu lay tekki catholique bi bu mu takkee di croix bu dee ni privé la rek loolu lépp nañ ko def bu ñu nangu ko ñu divertir yàlla moo ne jaamu yàlla lu mu la fekk ngay def bàyyi ko fa dem defi li la suñu borom subhaanahu wa taala digal bu du sëriñ Touba bi ko tubaab yi ne bul julli suñu bato mu toog jàpp njàmburam loolu rek misaal la ci julli dayo gi mu am Cheikh Amadou Bamba dafa sànni der bi ci géeju yàlla bi ngir bañ a faatu waxtu loolu julli bu ci jàngul solo si julli am ci diine lislaam dootoo xamati valeuru julli ñun waxi yàlla lañu gëm gëmuñu waxi doomi aadama parce que bu doon doomi aadama kese ci kaw suuf te diine amul dara amul ku ci nekk dangay def lu la neex dañuy mel ni rek mala yi wala ñu raw leen parce que yàlla daf ñu jox xel te xel boobu noonu daf ñuy xiirtal chaque fois ñuy xalaat xalaat yu bon di def yi fi saay-saay di topp suñu nasu bakkan diine nag moo lay occupé di la juliloo di la woorloo di la wax ni boo liggéey jël ci dara ci sa salaire nga génne ci asaka lépp pour musal doomi aadama bi ci àdduna ak ay léegi nag avocat wu pharmacien yi nga xamante ni nii dàq nañ leen ñi ngi annoncé que ni dinañ lancer ab pétition pour que ñu dàq propriétaire pharmacie bi muy gigon ci boppam ci Sénégal mu jóge fi gannaaw ba mu violé suñuy loi toroxal képp ku julit ñàkkal leen li nga xamante ni mooy worma parce qu'il faut que ñu xam que ni Sénégal ay dëkku aji ngëm la fii ku fi newu julit chrétien ga nekkuñu ay laïc ba ku ne sa ngëm-ngëm nga koy bàyyi sa kër pour lu neex sa patron wala beneen doomi aadama loolu benn la ñaareelu mbir mi mooy dañuy woo képp kuy ngëm waxuñu rek jullit ñi mais même ñi nga xamante ni nii ay chrétien lañ ñu boycotté pharmacie Guigon pour walleen ni sénégalais yi ñoo tax ñu existé ñoom donc du ñu wëlbatiku di attaqué sénégalais ci seen ngëm-ngëm pour ay intérêt personnel nañ leen boycotté parce que am na yeneen pharmacie de proximité yi nga xamante nii moo jaroog pharmacie Guigon nañ fa dem jëndee fa parce que ñoom kese neewuñu fi parce que li garaaw mooy mbir yu ni mel bu ñu bàyyee mu jàll dinañ tollu jamono joo xamante ni benn sénégalais dootul amati droit pratique li nga xamante ni mooy diineem ci ni mu waree. lii raam ci njàgg la jëm te bu ñu bàyyee mu dëkk fa sanc fa ëllëg du ñu am lu ñu neex ci suñu njaboot yi. te dañ ciy profité di ñaar rek waajur yi ñu gën a farlu ci yarum xale yi parce que am na ci ay kàddu yoo xamante ni buñ koy dégg muy jugee ci ay wala ay chrétien dañuy xam ni. ñu ci bari yaruñu leen ci diine ci Sénégal gi donc message la bi ñuy lancé képp kuy wayjur même bu ni sa dom dang koy école française na jang d'abord dinem mu am ay matukaay yu war tax mu ci yene influence parce que influence moy tax Yalla wax li ngay am lo ci tek di jaay xel mu ak ouverture d'esprit alors que yow nasaraan si na la bu yag ak laïcité bi nga xamanteni dindi iman ci suñu xol yi expliqué nañ ko ci benn vidéo ak intervention wu Ababacar Mboup objectif laïcité moy dindi lepp luy diine ci doxalinu doomi bu ko defee nag jamono ni muy demee ñuy dindi imaan ci moom parce que buñ la nee booy liggéey amoo droit dem julli ji da ngay dem ba tàmm faat li nga xamante ni mooy ay waxtu te nooy gën di demee di nga dem sax ba dootoo demati liggéey ji maanaam nga nekk sa biir kër fàtte dem julli ji parce que da nga koy tàmm noonu ngay demee ba sàggane julli sa imaan di wàññeeku te imaan bu wàññeekoo moo lay moyloo mooy tax ngay lekk riba moo lay dugal ci lépp lu yàlla tere donc nañ ci bàyyi xel bu baax Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo.